jëf mbokki internet ba Sénégal tey nak dañuy doori xibaar yi ci euh, ki nga xamante ni mooy Moustapha Dramé moom borom euh, yàllaay kese gi di fajkatu cosaan bi ñu ràññee loolu euh, fii ci Sénégal dañ ko arrêté nit ki tey foofee ca Almaris ñu jàppee ko ca li nga xamante ni mooy affaire de escroquerie suñu jógee foofu dañuy wax ci scandale bi ñu daal di nemmeeku fi nga xamante ni moom moo di euh, ci euh, waa duwaan ñoom euh, daal di nañu saisir lu tolloog huit milliards de francs fa foofee ca port de Dakar ci benn réseau bi nga xamante ni fraude démantelée ci noonu dañuy euh, nemmeekoo jëf ju rafet bi nga xamante ni euh, moom la Serigne euh, Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidiane daal yëkkati lu tollook cinq millions jébbal ko Serigne Mountakha Mbacké ginnaaw inondation yu metti yi ñu ràññee foofu ca diwaanu Touba. fi ñuy daal di jeexalee suñuy xibaar ci actualité politique la euh, kii nga xamante ni euh, moo di di Didier Fall moom nee na dafa daal di euh, joteek Sonko moom di Didier Fall génn na di leeral ni moom ak Ousmane Sonko dara doxul seen diggante moom ak Jomaay tamit dara lu ñaaw doxul seen diggante. loolu nag lañ leen indiloon ci xibaaru Buzz Sénégal di leen ñaan ngeen abonné ak di activer cloche de notification ngir yeneen information